kër Cheikh Bara Ndiaye waaw mi ngi nii taal otoom waaw léegi léegi lañ ko taal parce que ñun trois heures de matin ba trois heures ñu ngi woon si biti si buntu kër gi bi ñu duggee léegi defe naa xam naa nag ñi doon ñu ñëwoon pour def ko dañ toogoon à côté di ñu xool waaw gaa yaa ngi nii waaw sëñ baa ngi nii taxaw waaw Cheikh Bara ngi nii taxaw vraiment def ko cant waaw buntu kër Cheikh Bara Ndiaye waaw otoom lañ taal léegi waaw léegi lañ ko liggéey léegi la ko gaay la ko taal mais nag sant yàlla heureusement que comme c'est du matériel oto bi moom du fanaan si biir kër gi dëgg yàlla à fois si buntu si biti lañ koy bàyyi waaw parce que moom daa jël léppam teg ko si loxo yàlla saa borom waaw mais nag voilà mi ngi noonu sëñ baa ngi nii